Grand ku wax li nga xamante ne nii mooy euh, banlieue. Mhm. particulièrement commune bu Guinaw Rails Nord comme yeneen communes yi nekk ci département bu Pikine euh, wax insécurité ñàkk kaaraange tey nga am ci xereñte gu mat sëkk goo xam ne nii fuñ la tudd ci département bi rek dinañ xam ni loolu sa domaine la. Mhm. tey euh, lan nga jàpp ni moo ko doon waral ak ndax dafa yokk ndax dafa wàññeeku fi ñu toll ci ñàkk kaaraange. waa ci liñ ci wax defe naa 96. Mhm. la gënoon ñàng. gënoon doy waar ñu jublu ci. waxtaane ko def ci loo xam ne tey jii moo ci dindi lu bari muy comité de vigilance yi ñu taxawal. loolu dafa am solo trop ci gox te bañ koy taxawal ñun dañoo amoon objectif. d'abord xool étranger yi fi ne nan lañ fi dëkkee. Hmm. seen génn nan la seen dugg nan la. moo waraloon ñu taxawal ay comité de vigilance nekk ci guddi gi nga xam ne kuy dugg dinañ xam kuy génn dinañ xam. mais grand wax nga lu doy waar loo xam ne tey sujet la boo xam ne sujet d' la ba am na benn kilifa goo xam ne di Tahirou Sarr bi mu ko junjee ci wàllu ñi nga xam ne dëkkuñu fii seen nekkin nan lañ leen war a fexee nuñ fi toogee gis nga sénégalais yu bari ak ñenn ñi dañ koy mbamb mais li nga wax ni lu am solo la bokk na ci bi ngeen ko tegee ay comité de vigilance am ngeen ci résultat. résultat boobu ñu ci am. Mhm. moo waraloon dëkk Côte d'Ivoire am na benn dëkk bu ñuy benn bu ñuy wax ci biir Côte d'Ivoire bu ñuy wax Yopougon. Yopougon. ñëw nañu fii jël exemple ñun ci ñun ne ni ngeen def ba seen secteur bi normal. Mhm. ñun foofu ci Côte d'Ivoire loolu ñu bëgg ci jamono yooyu. ok maire Ablaye Diop maa ko formé ci comité de vigilance. honorable député pour ginnaaw raay sud. ginnaaw raay sud en 96. ok nga jóge fii dugg waxi nan. Mhm. ñoom grand Jean maa leen formé en 96. nga dem Thiaré ji dëkk Thiaré kaw. Mhm. ñoom grand Zal maa leen formé comité de vigilance dama dem ba banlieue bi ñu. tej ko dajal ko rythme bi ñuy def ñun wa ginnaaw di def. ok ñu dem ba gis ne actuellement fim mu mbir mi mu ngi teggu ci yoon. Mhm. am lu ko yaq lu mel nan très bien xam nga su dee domaine da nga ci dugg. Mhm. mu xaw nek ci domaine ben koor da nga am limite. Mhm. ñu wax la ne la. lolu dafa am koor bu mu laal. muy police. gendarmerie. ñoo yor kaaraange réew mi mais nga gis ne euh, ñoom mënuñu matal fépp. Mm-hmm. déedéet nga toog ci kër gi nii nekk police yu caare xam li ne fii. Mm-hmm. wala nga nekk fii ci kër gi nekk police ginnaaw raay xam li ne fii. Mm-hmm. suñ la ko waxul mënoo xam doo jinne dëgg la comité yi li ko taxaw na jóg mooy rek régler situation yi nga xam ne mooy am ci quartier yi da nga yeew nga dégg fi lu garaaw. jékki bëccëg gi jot. nga dégg fi lu te yi ci ëpp ay vol la rek. jamono yooyu agression yi bëriwul parce que train bi la ñuy dañuy këf euh, chaîne nu jàmbur. yéeg bi. muy train petit bleu. petit train bleu petit train mhm. ñu yàlla dimbalee ba ñu toog ba réglé ko ba toog waxtaan ci. Mhm. bi ñu jógee dafa saafarawu parce que quartier boo gis ña dëkk ñoo ko mën a réglé. Mhm. waxtu ma la su rawatina ña juddoo.

alors buñ ci djublo la doro gis lolu ok kuñ ci japp ku ne li ci ëpp pëlëfuta ngay doon han ah, du question day dañuy wax mais ñi ci japp ñep ay étranger lu pëlëfuta la lañuy doon top leen nak ba ci seen kër yi mais gis fa yo xam yu jéggi dayu la té lolu daaw fi am alors nak ci lañ jëlé suñu matuay wo paye ak maire ak tout le monde jël ko en affaire bu mu sévère ba ay partenaire di fi di jóge Europe di ñëw fi dégg situation yi ni mu demee ñu ñëw xool lii ñan ñoo ko mais ñu xool ne ñun la mais affaire bi jaaxal leen. ci la ñu commencé nag ci comité boobu ci la ñu créé ay centre de formation. ok parce que dañ doon dajeek ay booy yu fàq ci biir koñ bi di nelaw ci oto yu yàqu yi ak ci kër yi eggul mhm. yi. bi ñu xoolee yoy boy booy fàq man yoy mhm. ay boy la yu joggé feneen ñëw di fi faq ñu top leen ba ci seen biir famille mais ñun la ñu ñuy laaj cause bi waral booy di faq bi ma ci toogee benn policier bu ñu jox Léopold Diouf. bi yoroon sécurité urbaine. mu ne moom affaire bi daf ko jaaxal ma ne ko man dinaa la ci wax te li ma la wax du dañ. jamono yooyu jàpp ma jàpp ñaari booy. ci guddi gi. topp leen ba tëli tëli jàllo fëgg seen waa kër bi ma bi ñu ubbee booy fi ñuy fanaan. ci biir néeg bi parawaar lañu def ci diggante bi. ruum bi. ci kaw. kuy nàmpa nga fa ak koo xam ne kuy door a fer. ok. ma laaj famille bi ne leen kii fii la dëkk ñu ni suñu doom la te booy boobu presque mi ngi amoon ay dix-huit ans ay dix-sept ans. ok bi ne ma fanaan fii damay dem ci biti ba bësat jot ba maire bi jaay ji paa bi génn uti man ma soo a ñëw tëdd. oh. looloo waral boo genre boo yooyu guddi gi bu ñu dajee kuy sàcc wala kuy agressé dañuy ànd ak ñoom seen yaay tamit. jàppe nañ xale yi guddi googu ñuy dem bon ñu ngi daani seen doole mais seen xel war na xalaat ni xale bu toll nii nan la mën a daanee dooleem ci guddi ci heure boobu. xale bi xaalis bu muy indi. Mm-hmm. da koy jox yaay ji yaay ji talul lu dul li mu doon uti ci bëccëg amu ko doom ji indil na ko. ci lay mm-hmm. togg añ ci lay togg reer. Mm-hmm. réglatul sax booy bi fan la oh. lu ci ëpp. ci façon bobu la façon bobu ñuy dund la. façon yo nak man buñu ba réglé ko. ragal ni mbir d'accord motax ci ci film. Mhm. bo international la nuit yu bari nañ dem ko cinéma cinéma mhm. TV5 euh, mhm. mal acteur bi. ok gis ko ci aduna ñu xamni ne suñ ko dans les normes li jëm ci pauvreté su wàññeekul fii ci ginnaaw ray la mhm. ciy des dootul bëri. mais comme lu ñuy wax amul suivi. d'accord suivi bi fan lay. non suivi bi yéen wala ci yi quelques yi la parce que boo ñëwee falu li nga war a njëkk xool. mooy fi mbir mi tolloon. Mhm. mais bu leen di la tegal la ne la situation yi fii la toll en tant que commune yaa ko war a eggali ñi fi doon falu ñu seenam njàng sorul woon. Mhm. ba tax na du ñu mën a topp loolu.

Sonko mujjee def ak ministre école ministre amul. waaw te bu ñu ci formation yi ñu tàggat leen ci niñ ko bëggé ak niñ ko wara doxalé mhm. ku ci génné ku né da nga mokal so génné nak wara a appliquer lool lool mo indi formation formation bu ñu koy wax. manam mhm. dafa am ñu ñu dajale ca lañuy yëngatu ñu tàggat leen ci tàggat bi moy laaj leen ñu wax ñi leen di former wax leen. Mhm. ñuy dégg. ba bu ñu génnee. ca nañu ko jàngalee doomu aadama yi ñoo ñoo gën a ko ci réew mi loolu moo indi baatu formation. d'accord euh, mais ñu gis ni tey euh, changement am na ci régime bi am nañ ay euh, autorités yu bees yoo xam ni tey rupture la ñu woote te li nga doon def am na impact bu mu doon def sur le plan social am sur le plan sécuritaire lu ci nekk am na ci impact bu mu ci doon def boo xam ne mi ngi jëriñ askan wi tey service médial service public nga doon def loo xam ne yaa ngi doon service état di liggéeyal état donte euh, côté bi nga doon liggéeyee sax daanaka volonté la woon mais li nga doon def état la war te yaa ngi leen doon dooleel lan ngay tàllal loxo ci autorité bees yi ñëw. pour ñu gën a continuer li nga xam ne mooy euh, idéologie boobu xaw xalaat boobu programme boobu ba mën leen a jëlee li nga xam ne mooy ñàkk kaaraange gi ci banlieue bi ñàkkum xëy mi ci banlieue bi. Euh, ci li ma leen di ñaax rek ñoom ñoom ñu bees ñi ñi fi newoon li ñu doon bañ. Mhm. maanaam li ñu doon bañ a def ci askan wi. Mhm. ñoom ñoom ñu bees ñi dañ ko def mooy egsi ci askan wi doo yóbbante yaa yor sa sol sa dàll. Mhm. fekk ci askan bi ñuy wax ngay dégg. ñuy def ngay gis. non parce que fi ma gën a soxla sama question bi ma lay laaj mooy banlieue bi dañ fi liggéeyoon lu am solo booba arène nationale amaguñu ko woon léegi am nañ arène nationale am nañ ay stade match day am làmb am suñu paree simol yi dañuy tas ci biir département bi ci commune yëpp doon ci ay victimes tey état nan la leen war a accompagner ci zone ak gox-goxaan ak mbedd yi nga xam ne tey euh, su yu mel noonu amee yéen di ngeen mën a teel a dànkaafu pare. mën a liggéey ak ñi nga xam ne ñooy yore wàllu sécurité publique te mooy police wala gendarmerie nekkal leen ci yenn gox yi ba askan wi mën a nekk ci jàmm ndax état moo war a sàmm askan wi ak seen moomeel. Mhm. waaw xam nga ci côté boobu <clears throat> yenn saa yi gars yi dañ koy moytu mais man duma ko moytu dama ci def direct gis nga yooyu ngay wax yow mi journaliste bi. Mhm. foo xamee sumel sumal simol cimol. Mhm. simol yow foo ko xamee. ci baale bi. <laughs> <laughs> waaw.

ñeneen wat indi benen façon gis nga ñi ñi ñi bi bi ñu gis ni mhm. dañuy dem ñeneen ñew ok mais li nga xamanteni mom ngay wax. lan moy mhm. dindi lolu mhm. mais li dindi lolu actuellement ci banlieue bi. nga ne luñ tabax arène nationale. waaw ak lan esat esat ak lan <laughs> am na lu ñu fa aren. waaw bala nga ne arène ne esat ñi war dem arène fu leen war former tabaxal sen école ba pare bi leen war former ñom jangal len jangal len bañu don liñu don xam ko nga soog a ubbi fa ñuy war a tàggatee. utal leen ay industrie non bul sonn noonu la war a demee. mais yow da nga jiitu fa ñuy xeexee fi ñuy xeex nga leen defal ba pare fi ñuy dóorante di xeex ba deret naaj mais defaloo leen fi nga xam ne fa lañu war a jàngee ba am xam-xam bay yedd doomu adama bay gunge doomu aadama ci li mu bëgg te du ci xeex du ci xuloo njëkkee woo foofu de. Mhm. yow yaa ngi njëkkee fi ñu war a xeexee. fi ñu war a xeexam mooy lan arène nationale mhm. defaral leen ko ba mu rafet leen ngeen dóorante mhm. kaa leen ngeen saagante mhm. kaa leen ngeen dammante ñooñu buñ ci mokkalee foofu ci jotaay boobu nga leen defal bu ñu génnee moom la ñuy